mire ndaje xumboon lool ñu ko doon amal ci Touba soxna Mame Saye Mbacké nekk responsable politique boo xam ne ràññee nañ ko lool ci dëkk bu seen bii di Touba ci lëkkaloom ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Madické ci la ñu taxawal bu ni mel askan bi bàyyeekoon fu nekk ngir wuy si woote bi nga xam ne woote woon nañ ko waaye tamit kilifa yu ñu ràññee ñu mën ci xam ne Serigne Bassirou Mbacké Typ ak Baye Alla Sylla askan yi nga xam ne nag ñoo nekk foofee gannaaw bu ñu jëlee kàddu ga jàmbat ay jafe-jafe yoo xam ñu ngi koy jànkonteel ca boobule quartier ngir sàkku ci ki nga xam ne nag moo di soxna Mame Saye Mbacké seen bëgg-bëgg boobu daal di koy eggalee ci ki nga xam ne nag moo di njiitu réew mi ngir ñu mën ci andi saafara. maanaam seen xel daan na fi Madiyana ndax ñun jàpp naa ne incha du 2000 la la 24 19 na fekk ñu jox ñu ndam li ndax président Macky Sall dama doon ko delloo njukkal euh, def na Touba loo xam ne nii li koy delloo njukkal mooy la 24 février ñu jox ko ndam li ndax grand ba def na ko Touba li may wax chaque jour rek def na fi assainissement am mi fi. def na fi deer bi def na fi ëpp ci affaire bi Ila Touba bi nit nag bu fekkee jël na dooleem yëpp jox ñu te xoolul leen li di loo delloo njukkal ko njukkal 2019 ngir jëmbi sëñ Touba ndax mi nga xam ne nag moo waraloon mi leen daje gannaaw bu mu jëlee kàddu yi sant gërëm ñi nga xam ne ñoo ñoo wuyu si woon lu ni mel xam ne mbégte dëgg daal la am ci jotaay bu ni mel waaye lépp loo xam ne daal mën nañ ko ngir njiitu réew président Macky Sall amaat beneen mandat waaye tamit ndam lu yaatu ci dëkk bu sell bi di Touba dinañu ko def jàpp nañ jàpp ak bàyyi àll mu soobee moom lépp loor ma di yaana des nañu ko ko def ndax bàyyi àll mu fàtte mu ko jàpp ne fu mu dem ma di yaana rek lay wax moom ma dikkee sant baax jërë di sant baax ma dikkee di ko ñaana moom fi bëgg ak maa ko jàmbaar la bëgg na lu baax sonn na ci parti bi incha allah ndam dana ñëw tam dikkee na ci sa bopp mu nekkoon ndaje moo xam ne la fa daje woon ci ay ni tàkku woon na lool waaye tamit lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ambiance amoon na fa di tàccu akare ci mbégte boo xam ne am nañ ko ngir gisanteeg soxna Mame say Mbacké